Ahmed gën ñoo maanu. ah mais yàlla loolu la wax di ku rey ñu rey boroom kàddu yi di Aziz Dabala di ab feccekat moom nag daal di nañ koy faat niki démb nag la ñu jot ci li nga xamante ni moo di xibaar yi bu ñu sukkandikoo ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo teewoon ci jamono ji nga xam ni police ñu ngi doon jël kooram moom ak kenn nag nga xam ni moom la bokkaloon appartement ñoom ñaar ñëpp la ñu daal di rendi ñu daal di wuyu ji seen boroom lan moo waral lu ne mel nag enquêteurs yi dinañ ci dikk waaye daal lañu mën a jàpp moo di niki dibeer ba léegi. lañu ko joon teg bët ki nga xamanteni moo di Aziz Dabala. gën ñoo maam. ah mais yàlla loolu la wax di ku rey ñu rey la ku sàcc ñu dagg sa loxo peine de mort mi am ci dëkk yëpp. Mhm. mais lu tax fii boo bëlee ñu ngi jam nañ ñi di rey di rey di rey di rey. mais loolu est-ce que appliqué ko fii dina yomb. xool ma lu yomb ak lu yombul dem nee nañ dañuy topp lu wax ñun ay jullit lañ wax non. Mhm. loolu la yàlla santaane. Mhm. lu ñuy xaar. ah boobu arrangé wuñu. léegi ñun boobu arrangé wuñu quoi léegi fan moo ñu arrangé waxi jàmm yëfi jàmbur duglu ci suñu yoon nekkul nekkul ci deruñu boobu moo ñu arrangé dëju jàmbur lu ci suñu yoon ñun bañ naan dañuy ñaanal mel ni ñun ñaan gi ñuy ñaan daf ñoo leen yàlla fi koy nangu bañ naan lu ñu ñaanal chrétien duñ man de xu wax la ma chrétien yu xool sax dama koy ñaanal parce que man lijjantiwuma loolu man doomu aadama njaay ma ñor te kii ñu rey doomu aadama njaay la nañ lijjanti kaa bi nañ bàyyi ñuy def na fii naan eh, non non non li dafa metti makaara ngi nii mënu sax siggi ba ma laxas